loolu loolu taxul du affaire candidature Karim de candidature Karim pour moom prétexte moo tax bi ñëlee posé candidature Karim mu ne ay député am nañ ko jàppale. pour def semblant. waaw pour créer situation bi ñuy vivre tey. su ma indiwaatee sama laaj bi lan la bëgg. kon baa du toog ci nguur gi ba faw toog ci nguur gi ba faw moom moo gën a xam ni munu ko. fi mu ne commencé na dàq élection yi bu fekkee ne loolu réussir na ci moom ñëpp xam nañ deuxième étape bi lan la deuxième étape bi mooy nag lay fexe ba candidat yi nga xam ni bëggu leen mu affaiblir leen pour jéem pousse beneen candidat indi keneen fi mu ne bu fekkee ne li muy def réussir na mm-hmm. wóorul ne dina réussir. parce que bu weesoo euh, kàddu yi jóge bitim réew euh, moo xam communauté internationale bi wala sous région bi CEDEAO ak yeneen ay série de manifestations aussi euh, dal nañ koy sumb ci réew mi ñu gis syndicalistes yi sax dugg ci au départ c'était pas ça peut-être politique yi ak société civile bi ñoo fi nekkoon loolu jàpp nga ne dina doy aussi comme pression ci moom pour que li mu bëgg bañ a ànd. xam nga xeex. boo koy def foog nga wàcc ndax euh, li may seetlu li may bañ mooy ku nekk ni nii laay xeex ndax bu fekkee ni réaction yi ku nekk ak sa mer nga réagir li may ragal mooy réew mi dugg dans la kaw kii taal fii kii def lii réew mi dugg dans kaw chaos kenn mënatul contrôler dara kenn dootul xam lu xew looloo tax damay wax sénégalais yi aussi seen réaction il faut mu nekk réaction organisée il faut que nit ñi ñi nga xam ni dañu bañ lii yépp mën a daje waxtaan xam xeex bi naka lañ koy doxale ba mu egg fa mu war a egg wande bu fekkee ni ku nekk day def lu la neex rek loolu sunu xeex boo moytul du egg si mu war a egg xeex bi euh, euh, ak président Macky Sall au départ peut-être xeexu société civile bi la woon ak politique yi nekkoon nga syndicaliste ban apport la ci syndicat yi mën a indi ba mu peser sur la balance mën a xëy na sopp yëf yi mu wuteeg la daan am waaw loolu itam dama bëgg mu leer xeex bi du xeex syndical du xeex politik maanaam du politik partisane du loolu loolu yëpp foog ñu dindi ko teg ko fële li ñu boole ci xeex bi mooy naka lañuy soowe sauver sunu système démocratique loolu moo boole ñëpp ci xeex bi muy syndicat muy parti politique muy patronat ñëpp secteur yooyu yëpp dañu war a dajaloo tey waxtaan naka la ñuy sauver sunu système démocratique xeexuñu pour bii parti mbaa pour bii syndicat mbaa bu pat xeexuñu loolu de sunu xeex mooy sauver sunu système démocratique pour yow naka lañ ko war a defee dajaloo. est-ce que yoon bi ñu jël baax na débrayage grève générale yu ñu annoncé sectoriel euh, national. mën nañ doore ci loolu. mais li wóor ba wóor soog fekk dajaloo force yëpp toog ñëpp waxtaan mu wóor ni ñun ñëpp li ñuy wut benn la mooy lii mu leer ci boppu ñëpp. Mhm. que keneen wutul loolu ci ci li ñuy def lu dul sowe suñu système démocratique léegi nag naka la ñuy dajaloo ñun ñëpp. ba loolu ñu mën ko sotti dajaloo waxtaan jëf loolu lañu mën a def pour mën a am li ñu bëgg a am waande bu fekkee syndicat bi day dem fii kii dem fii kii dem fii ku nekk yow yaay def li la neex lut bi boo moytu na affaiblir parce que en face justement il la répression takk der yi euh, gis nañu souvent su manifestation amee ni ñuy doxalee euh, jàpp gi bari na mm-hmm. ñi nga xam ne itam euh, dañ leen di indil ay jafe-jafe ci seen wàllu liggéey wal fajri coupé nañ seen signal nangu seen licence définitivement est-ce que yaakaar nga ne syndicat yeeg société civile yeeg politique yi mën nañu dékku loolu nga xam ne aussi benn système de répression la ñu fi teg depuis depuis des années histoire bi daal li mu wone mooy peuple bi bu fekkee ni benn répression mën na ko bu peuple bi uniré bu fekkee ne ay groupe dañu dem fii dugg fii dugg fii ñu réprimer li ñu waaw mais peuple bi bu uniré amul benn répression bu ko mën a téye union boobu nag foog ñu def ko buñ ko deful xeex bi ñu bëgg du mu naan union bi est-ce que ci histoire politique gu Sénégal situation bu mel nii mës nañu ko dund ci wàllu répression ci wàllu recul démocratique ni ko intellectuel yi waxee est-ce que am na fu ñu ko mun a tracer dans notre histoire que ni lu mel ni kat mosoon na fi am. waaw xam nga contexte yi dañ dul benn parce que bala ngaa comparer il faut contexte yi nekk benn ñun bi ñu amee indépendance parti unique unifié. moo yore woon réew booba temps sunu xeex xeexu ndax mën nañ créer parti beneen parti politique bu dul parti au pouvoir ndax mën nañ créer yeneen syndicat yoo xam ni du syndicat bi ànd ak pouvoir bi naka journaux yoo xam ni bokkul ak journaux pouvoir bi loolu moo doon suñu xeex mm-hmm. xeex boobu dañ ko passé woon ku nekk am nga droit créer journal ku nekk am nga droit créer syndicat ku nekk am nga droit créer Sénégal xeex boobu peuple bi daf ko xeex ba gañee ko donc étape boobu xam nga kenn mënu ko comparer ak étape bi ñu jëm bi ñu gañee loolu yëpp droit démocratique yi topp yëpp droit de manifestation euh, droit de réunion sur la voie publique yooyu yëpp dañ ko xeex aussi ba jot ko Macky Sall biñ koy élire euh, dañ ko élire ci condition yoo xam ni ñi doon xeex aussi ay droit mm-hmm. ndax Wade am na lu mu bëggaloon fu mu bëggaloon jubal réew mi ñu ne démocratie may ñu ñu nangu loolu mm-hmm. kon foog ñu xeex ko parce que réew mi du royaume. Mhm. ba nga xam ni dañ koy doxalee ay succession mënul am ñu xeex loolu. Euh, Macky fekk na yooyu yëpp peuple sénégalais bi gagné mu nekk ay acquis. dañu yaakaaroon ne nag bu ñëwee day yokk liberté yi yokk droit du peuple yokk ban ci constitution bi bind nañ ko. Euh, nii droit dina am jusqu'aux ressources même ressources yi nekk ci am droit waaye bi mu commencé doxal wane na ni démocratie du yoonam yoonam passage en force yoonam jaay doole la doole jooju moom la commencé interdire manifestation yi après interdiction manifestation yi arrestation yi après arrestation tir sur des manifestants rey leen après loolu interdiction de parti politique donc fii jëm ak mag yi dafa metti dafa metti kon mën nañ ne lim fi def guléet la c'est inédit régression la ñu indi li tubaab di wax régression dellu ginnaaw dellu ginnaaw dañu dellu ginnaaw mbirum démocratie yëpp dañ ci dellu ginnaaw loolu mooy bilan Macky ci mbirum démocratie. dinañu ñëw ci bilan am mu gën a yaatoo mais dañuy euh, delluwaat tuuti ci processus électoral bi wut na ay euh, explication yu mu joxe euh, ni moo tax mu dàq élection bi processus électoral bi ni mu doon demee jàpp nga ne effectivement bu ñu demoon ci élection. mën na jur coow dëgg-dëgg parce que liñ éliminé ci ay candidats bëri na coowal parrainage bi niñ ko contrôlé ñiñ leen éliminé clé USB yi euh, candidature Ousmane Sonko euh, ba mu wut Diomaye mu nekk candidat à la fin yooyu yëpp est-ce que euh, jàpp nga ne buñ ci demoon élection effectivement aussi réew mi mënoon na am problème. wax ni bu ñu demoon élection ci réew mi réew mi dina am problème mooy jéem a dëggal li Macky Sall wax. ndax euh, ni ma ko waxee woon bu fekkee ne ay contestation la rek muy pré-électoral mbaa muy post-électoral dafa yàgg am ci réew mi sa taxul ñu dàq ay élection kon nag du ma ni du am contestation kooku moom waxuma ko mais dinaa wax lenn loo xam ni c'est contraire ci li Macky wax boo seetee candidat yooyu ñu recalé majorité bi bi nga xamee ni yi dafa bëgg a reporter yi ñoom ñëpp dañu jóg pratiquement ni ñoom bëgguñu report élection yi. ku ne jàppale. waaw bëgguñu report élection mm-hmm. kon nag kenn mënul sukkandiku ci ñoom di wax ni ñoo tax ñu ne reporter yi ñoom wax nañ ni bëgguñu ko reporter élection yi. processus boobu euh, ŋàññ nañ ci conseil constitutionnel gi nga xam ne fa lañ doon contrôler parrainage yi loolu jàpp nga ne responsabilité conseil constitutionnel la wala da nga gis une main politique derrière que xëy na lu ñu préparé la ndax am na ñu jàpp ne comme dañ leen numéroté woon ca parrainage xëy na dañoo programmer logiciel bi kenn xamul aussi nan lañ ko configurer ba suñ dugalee dossier numéro nangam mu rejeté ko ñoo xam ne yàgg nañ ci langue politique bi quand même euh, du ay problème de représentativité njoxtu nañ ne moom la ñuy am est-ce que gis nga loxol politique ci ginnaaw wala ay irrégularité la rek yoo xam ne peut-être c'est matériel. waaw Fatou du ma wax loo xam ni wóoru d'accord mais li ma xam mooy fichier bi nanguwuñu woon. kenn gis ko kenn xam na mu mel kooku moom nëbb fichier bi def nañ ko ñaareel bi génnee nañ fi benn fichier boo xam ni mi woon sénéra bi ko gars bëggee jël ñu ne fichier boobu baaxu nekkul à jour. waaw loolu la CNRA donc fichier bu baax bi anam kon nag. loolu moom wóor na ma ni loxo gouvernement bi kenn parce que gouvernement bi moo yore fichier yi kenn yorewu du conseil constitutionnel moo yore fichier bi gouvernement bi moo yore fichier bi. mais à 15 jours de l' élection lañ leen ko war a euh, jébbal. waaw bu leen ko jébbalee fichier bi bu ñu ko jébbalee à 15 jours yow lan nga ci xam bu fekkee ni am na ñu ci nekk ak ñu ci nekkul naka nga koy xam ne kooku électeurs yi ñoo ko mën a xam. conseil constitutionnel mënu koo xam c'est ñu bari ci candidat yi nga xam ni dañ leen recalé bi wane nañ ni seen parent yi seen carte électorale ak yëpp ngi ce fichier bi nee nañ nekku ci non identifié waaw ñu xayma leen ci neuf cent mille ah, lo loolu ak lu teg loolu gouvernement bi moo mën a joxe explication yi parce que fichier bi moom mooy responsable fichier bi du conseil constitutionnel gouvernement bi mën a jox explication yi mais loolu wane na itam que Sénégal mënuloo di bëre ba pare nekk arbitre juge est parti sa loolu moo ñu dal ak ñoom ñoom dañuy bëre ba pare nekk arbitre loolu nag tant que le wuñ ko aussi fii Sénégal dinañ continuer di am problème ci élection yi solution bi solution bi ñu am structure réellement indépendante boo xam ni tout le processus électoral moo ko yore ministère de l'intérieur dootul yore processus électoral bi tant que egsi wuñu foofu euh, mënuñu wax ni jeu bi c'est véritablement un jeu démocratique. comme onel ñu fi ah am. Ah, am na pays yoo xam ne élection bi gouvernement bi yoonam nekku ci. dafa am structure yoo xam ne ñoo responsable élection bi. Mm. jeex na d'accord bu weesoo problème fichier problème parrainage y avait aussi le cas Ousmane Sonko à la fin nekkatul problème parce que Sonko ut na beneen candidat xëy na pour baña def ni ñenn ñi di def suma bokkul élection du am mais cas wu Ousmane Sonko foog ñu taxaw ci parce que dafa dem CDC euh, ñu bañ ko jox euh, attestation mu dem. Euh, DGE ñu bañ ko jox fiche de parrainage te fekk na justice dogal na ni moom dañ ko war a delloo ci liste électorale yi ndax niñ ko ci génnee woon jaarul yoon mu dem ba foofa euh, conseil constitutionnel itam rejeté candidature am teg ko ci lu ñu ko daan ci mbiru Mame Mbaye alors que daan bi dépo dossier bi moom moo ko njëkk euh, kaw usman Sonko euh, noo ko jàngateeg loo ci jàpp. kaw Ousmane Sonko pour man kaa bu yomb yomb. li ko yombal mooy mag Macky décidé woon na depuis longtemps que Ousmane sonk du dem élection sa jaral na ko bakkana donc li dal Ousmane Sonko yépp Macky ko préparé teg ko ci koom pour mu bañ dem élection loolu tax ma ne ka Ousmane Sonko pour man dafa yomb noonu la demee gisuma ci leneen loo xam ni mën nañ ko wax ci